dal leen jàmm Macky Sall tas na gouvernement ba mbooleem yéen yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy dinu xibaar ni njiitu réew mi di président Macky démb ci timis la jël dogal jaarale ko ci décret ne ñaanal na gouvernement bi fi nekkoon l'observateur ne beneen gouvernement bu bees boo xam ne Amadou Ba ba tey moo koy jiite journal Futur Média bi boole ci dinu faram-fàcceel ban genre équipe la mën a doon enquête yéen kaay gannaaw enquête yim ci def ne coppite yu xóot dina ci am Amadou Ba mooy des di nekk élimaani jëwriñ di premier ministre waaye nag ministère élevage ak sport bi mu yore woon ñeneen la koy jox le quotidien Macky Sall kay li mu jox Amadou Ba mooy tekki ne da ko bëgg a dooleel Vox Populi ne dëgg la pouvoir yépp la ko jox ngir mu gën a mën a am ndëgër laay waaye itam waajal élection présidentielle yu atum 2024 tax tribune yéen kaay duppee ko gouvernement de combat direct news ne moom équipe électorale la gis boo xam ne faaw Dakar Touba ak mbuur seddu ca ndax enjeu ya fay am ci élection yi nu dëgmal susu aane Macky Sall daal bi yoon fatt fépp la def Amadou Ba rek la leeral ne mooy des ña ca des moom dañuy xaar le soleil national ne xaar bu dul yàgg lay doon ndax léegi tey ñu fésal gouvernement bu yees bi lii quotidien li leen leer te wóor moo di ne Amadou Ba moom moo koy diriger waaye journal bi nee na bi fi njiitu réew mi di président Macky Sall toogeeg léegi am na fi ñeenti premier ministre ak juróom-benn gouvernement ci diir fukki at ak ñaar Sud Quotidien juróom-benn weer yi ko fi dese Amadou Ba mooy wéy di nekk ilimaani jëwrin yi jiite équipe bi waaj a ñëw bés bi la jour duppee ko équipe de combat combat bi Ousmane Sonko doon defee ca cour suprême na ko journal l'info ne ci boppam la Ousmane Sonko ñàkk journal bi ne gannaaw bi ko direction des élections lankee jox fis parrainage yi Ousmane Sonko dafa yabaloon avocat yi koy layal ñu dem ca cour suprême def fab recours démb itam avocat yi dugg fa layoo fa diiru pu juróomi waxtu waaye ca mujjantal ga jëlewun fa ndam le point info ne cour suprême kay dafa déclaré irrecevable requête ba fa Ousmane Sonko yóbbu woon Vox Populi ne mbétteel dëgg la ca avocat yi layal Ousmane Sonko am les éco ne ñooyee ndax nag juge ba dafa jox dëgg Ousmane Sonko ba noppi lànkal Ousmane Sonko a duppee ko gént gu jeex ci Ousmane Sonko enquête yéene kaay ne avocat yi koy layal moom déet la wax ndax ne duñu bàyyi maître Ciré Clédor Ly ne ab client ba tey moo ngi sàlloo ak droit politique am Amadou Bob Pastef ne paniqué moom teel na te amu fi place place u Aliou nekkul ca kaso journal bi ne waayaana ak F24 nee nañu dinañu xeex ba ñu bàyyi Aliou Sané ak képp ku nu jàpp te politique rek a tax ñanu jàppoon ca leneen di ña dogale woon bus ba ca yaraax taal ko ba ñaari doomu aadama ñàkk ca seen bakkan direct news nee ñeent ñan ca jàpp di Aliou Gueye yóbbu a yóbbu ñu taseeg waa Cameroun fésal na ko niki démb record yéene ne jongante xaritoo lay doon ñaar fukk ak juróom-benn footballkat la ca Aliou Cissé woolu stade yéene ne bokk na ca Nampalys Mendy Touré ñoom dañoo dellusiwaat Mamadou Sané moom wàcc si bees li bees ci làmb ji moo di diggante Modou Lo ak Ama Baldé sunu làmb yéene kaay ne juróomi fan ci weeru novembre la ñuy laale waaye muy sëll bu ndaw di xarañ loo ku nekk yaa ngay rey sa bopp combat royal lay doon te ku ca juum di nga daanu wàcc ma daan naa la wóorul ku daan da ngay féete kaw aada fas ak Jos suba la ñuy laale te ku ca jël defet di nga suux barça wala barsàq libération yéene kaay nee na juróom-ñetti gaali ci réewum Sénégal Espagne journal bi yokku ca ne ci diirub ñetti fan lu toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti doomi aadama jël nañ gaal gi utali Espagne. jamono jëlee gouvernement bu bees ndax njiit réew mi ni dem la tas bi fi newoon daal jaajëfal nag ministre yi ko yi ko doon doxal ku mooy kii di Amadou Barry moom moo des ca postam boobu di premier ministre ñuy xaar nag mu samp beneen gouvernement ku ci ne ak noo ci àddoo gannaaw ba Cour suprême jëlee tegal na doon dal gannaaw dogal bi nga xam ne jox ab kayit ngir mu dem dal di tàmbali ay parrainage am loolu nag jaaxal loolu ay mi mi Touré nag di naqalu démocratie na mu delloo ginnaaw ci mim réew Aïda Mbodj ne lii ab single kese la ci kii di Ousmane Sonko teg loxo bi ñu teg loxo kii di Alioune Sané ña muy euh, ña mu nekkal foofu ca yanamar nag daal taxaw temm ngir tàmbali xeex wi ñu sax fas yéene amal pétition naka noonu amal plan d'action ngir daal ne nañu bàyyi seen coordinateur ba tamit ñu bàyyi képp daal koo xam ne yaa ngi ca prison bi te ñu jàpp ne politique rek moom moo la fa yóbbu xeex dund gu cher gi naka noonu xeex facture yi ndox ak courant ni mu chéré lool Euh, kuréel bu boole euh, consommateur fi Sénégal nag fas yéene amal ab sitting bu yaa fii ak fukki fan ak juróom ñaar pàcc ba tàggat yaram dañ ci ànd ak ndongo ka technique Kader Lo asalaamaaleykum. leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu RFM njiite réew mi dal dina uh, tas gouvernement bi nit ki démb dal di nag jaajëfal uh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ministre doon ko doxal uh, président Macky Sall nag jël na dogal daal ne dafay daal di am amal beneen gouvernement jiite ko kii di Amadou Ba ndax ba te sax moom moo des ca posam boobu di premier ministre ñuy nag xaar boobu le list daal di génn ci lu yàggul di ay cadre secrétaire général président de la république Euh, cour euh, suprême jël na tega nele requêtu Ousmane Sonko mi doon dal euh, ci dogal bi nga xam ne DGE e, direction générale des élections jëloon na ko dal gannaaw ba mu bañee na di ko jox ab kayit boobee ngir mu tàmbalee ay parrainage am conseil wala ay avocat yu Ousmane Sonko nag am na leen metti lool ñuy na xaar dogal bi nga xam ne moom moo war a jógee ca Ziguinchor ak CEDEAO ngir xool nag ni ñu taxawee seen xeex boobee Abdourahmane Diallo ci ay leeral lu ëpp ñetti waxtu avocat yi procureur bi kenn ku nekk di teg waaye mujjantal ga juge cour suprême bi jàpp ni Ousmane Sonko newul ci yoon mu jox dëgg direction générale élection ak ministère de l'intérieur ñi nga xam ni dañu bañ a jox njiitu parti ba woon Pastef fiche de parrainage am yi avocat wu maire Ziguinchor bi di xam le ni dogal boobu lu leen bett la maître Ciré Clédor Ly dañoo pare yaakaaroon nañ ne xëy na dina dem dallu tuuti pour xool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 ndax mujjanteel bi kenn déegul dama mujj dem ci greffier bi ne ko waaw lan la wax mu ne daf leen ñàkkal doole moom moo di rejeté na ko dogal boobu nag amul recours teewul avocat Ousmane Sonko yi am yaakaar ci tribunal bu Ziguinchor ak bu cour de justice CEDEAO ngir njiitu parti ba woon Pastef mën a jot ay fiche de parrainage am. ka nga xam ne que moom moo war a xool li ñu dindi Ousmane li ñu ko rajee yoon la wala du yoon kooku juge Ziguinchor la te fii ak juróom-ñaari fan lu mu bari bari bari bari bari bari moom dina wax. ndax Ousmane li ministère bi def yoon la wala du yoon seedewaayoo it ñoom it ñi ngeeg mbir mi kon xeex bi mun nañ yor seen doole wante ñun dinañ ànd ak yoon dinañ ànd ak yàlla te li ñu war a def yëpp dinañ ko def. ci cour suprême takk der yu tàkkoo tàkku ñoo fa ne woon ngir kaarange gi teewul ay ñooñu Ousmane Sonko ñëwoon nañ fa ñuy xamle ni dogu nañu ngir seen candidature njiit bi. Mimi Touré nag euh, naqarlu li nga xam moom moo daal di am euh, maanaam démocratie ma nga dellu ginnaaw ci nu mu gën a doy waar ci mim réew gannaaw nag dogal bi nga xam ne cour suprême jël na ko. Euh, waaye tamit mu jàpp ne nag na ñëpp xeex ngir élection 2024 ku ci ku ci war a bokk bokk ci te bu ci kenn yoxe wa tamit ñuy xeex ba jële fi kii di Amadou Ba Mimi Touré ci jokko bek Babacar Fall loolu nag moom boo koy seet maanaam dafa bokk ci li tubaab naan recul démocratique maanaam di jël ab opposant di utiliser yoon pour mu bañ a bokk loolu xewatul fenn xewatul fenn kon euh, loolu vraiment d'accord ñu ci li nga xam ne nag moom la ñu war a def mooy ñi nga xam ne démocratie daf leen soxal waaw ñu continuer taxaw pour que élection yi ñëpp mën cee bokk muy man mi muy keneen muy Ousmane Sonko ñëpp mën a bokk loolu mooy ay élection démocratique euh, bu ko defee nag aussi euh, képp koo xam ne démocratie soxal na la démocrate nga ñu mobiliser wu pour continuer laaj pour que élection yëpp ñëpp mën cee bokk waaye nag la war a gën a def mooy ñu bi nga xam ne ne mooy Amadou Ba te nga xam ne mooy premier ministre nga xam ne bii mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar ñu fexe ba kooku ñu euh, dóor ko ci élection yi bu ñu àndee ñun ñëpp bu ko defee ñu mën a dellu si waat defaraat suñu démocratie ndax suñu démocratie bi dafa laaj ñu defaraat waaye ay euh, bu nu naree toogaat rek muy doon continuité ni mu ko waxee maanaam li président Macky Sall commencé woon ne ci mu nar koo continuer loolu démocratie bi day xal di gën a yàqu kon loolu dafa di urgence boo xam ne bii wax dëgg yàlla euh, démocrate yi euh, war nañoo ànd doon benn Euh, fexe ba euh, ñi nga xam ne ñoo nasaxal suñu démocratie bi te euh, kii nga xam ne mooy seen candidat mooy premier ministre amadu Ba ñu fexe ba ni mu gën a gaawee ci élection yi ca midi moom ñu génne ko ci élection yi ñu am président bu bees boo xam ne bii dañuy d'accord démocrate yépp pour waxtaane waat suñu démocratie bi tabaxat ko waaye fileeg booba nag nanu continuer taxaw pour que candidat yépp mën a bokk incha allah Euh, candidat aussi Ousmane Sonko moom it ci boppam euh, mën a bokk voilà euh, loolay démocratie. ay dem boo tamit àdduna ci moom mi di candidat tamit ci élection 2024 di ñu xaar ne moom loole bettu ko dafa daal jàpp ne ab single daal moom mooy daal di wéy ci kii di Ousmane Sonko ngir daal ñu fexe ba du bokk ci présidentielle bi ay dem jiite alliance nationale ngir démocratie ànd saxal liggéey daal yëkkati yooyu lee kàddu ci ba mu présenté ab kayitam ngir wàllu parrainage foofee ca Touba ak Mbacké ña mu ngi ci micro Papa Balla Gueye. bettuñu parce que ki doon sosal Sonko. ba mu koy sosal dafa bëggul woon Sonko bokk. ki doon attaqué Sonko. booba ba léegi dafa bëggul woon Sonko bokk. waaye du ñu découragé mësuñoo découragé. ndax waxtu wu ko galgalee rek. yàlla ñëw ak ay mbiram. du tey nit ñi dañ naan 2021 lu jiitu 2021 ba nëgë ñoom tàggoowuñu Sonko ku koy galgal yàlla di ko dimbale bii itam am nañ espoir ne dina ko jéggi jàll ndaxte ñoom loolu la ñu bëgg loolu la ñuy fexe waaye du loolu koy am ndax li leen dal tey boo jëlee ku légitime nga ndax nga génne ko ni ku légitime man damay substitué wu au juge électoral ba nga xam ni ku légitime man mi intérieur nga xam ne yow organisation élection yi dañ la ni woon yow waroo ko organiser danga nga waroon def ne Ablaye waat wut ku neutre koo xam ne faru fenn mu organiser élection yi looloo di maan nga ni doo ko def ni duma ko def carrément duma ko def justice ministre bi substitué wu au juge ñëw di tere ku bokk loolu fi lañ ko fekkoon xamoon nañ ko waaye jàpp nañ ni nañu dindee gàllankoor yu njëkk yëpp noonu la ñuy dindee waat gàllankoor yooyu dinañ épuiser recours yëpp ñun ñu ngi jóge bitim réew waaye foo dem ci bitim réew mu ngi metti lu la xew ci Sénégal mënagu koo bloqué nag ndax diggante xàcc ak dóor yi wu yàlla xaj na segum nag kookal lay jéem a bloqué ñeneen ñëw ñoo xam ne dinañ ko langal te xamul nag fi mu jëm ni ñu tege loxo kii di Alioune Sané bu Y'en a ñu muy àndal nag mer ba futtu ne daal dañoo fas yéene taxaw temm ba ñu daal di bàyyi seen coordinateur boobu waaye tamit ñu daal daal bàyyi képp daal koo xam ne euh, dañoo jàpp ne yaa ngi ca te mouvement Y'en a du ci wax. li ko wund nag xam nañ ko mooy xal xàllil péage ñoom seen ay candidature yu ñu fi teg pour éliminer toutes les voies dissidentes dans ce pays te loolu mun nekk te dara ci dëgg pour mën a tuumaal doomu jàmbur téye ko ci kaso bi c'est peine perdue parce que tey la ñu gën a am détermination tey la ñu gën a taxaw tey la ñu gën a pare tey la ñu gën a xeex encore une fois. Alioune Sané deful dara xoxotal kese la bi ñu sukkandikoo ci caat bu kër gi moomee nag jàppe yóbbum prison bi nga xamante ni def nañ ko Alioune Sané di coordinateur bile mouvement bu Y'en a nag lu xel la mënul nangu la. pour motiver seen dossier pour charger seen dossier pour teg ko ay tuuma dem nañ ba ne. le premier le deux ak le trois Alioune Sané moo taal otoom dem ba fële Kër Massar di sotti essence ay boy pour ñu taal. il sont même allés jusqu'à dire cette bêtise. alors que Alioune Sané a été arrêté xam naa dañ ko jàpp moom mu tàggu commissaire central ne ko maa ngi génn dem taal sama oto may booy essence ñu taal après guddi dinaa ñëwaat fanaan si pour vous dire à quel point le ridicule ne tue pas dans ce pays. coordinateur bu mouvement Y'en a marre di Alioune Sané moo nekk ki ci topp ki jiite plateforme bi di F24 tax nag Mamadou Mbodj ñëw dooleel mouvement bi di Y'en a ñun euh, war nañu def euh, fan yi ay réunion te dañ ci def benn pétition boo xam ne leader yi yëpp leader ak société yëpp dañ ko signé pour ñu libérer. Euh, Aliou Sané mais encore li nga xam ne ñu ko doon def pour que détenu yëpp génn. ñi bokk ci mouvement Y'en di laaj askan bu Sénégal ngir ñu jokk xeex li nga xamante ni moom lañ jàppee at xoxotal bi nga xamante ni nguur bu fi nekk mu ngi koy defa pour RFM rajo bi gën seen soxla. naam ñu nga def lu ne ba jëlee ko fi di mbëkk mi bay bakkant ci xot ci euh, waaxi Sénégal yëf yi nag mu ngay yokk ndax semaine bi rek lu jege junni doomi aadama dañoo mujj yegg foofu ca Espagne leexale ak bis bu nekk gaal yaa ngi teer ca île Canaries ca Espagne gaal yi ñu ngi woy di yegsi ci île bu ndaw bi di El Hierro bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay espagnol bi di El País semaine bi sax daanaka semaine record la ci jàngatu yéenekaay bi ajuma ji diggante trois heures du matin jàpp midi bateau bi di Salvamar Adara daal dina wàllu lu tollook ñeenti téeméer ak ñeent fukki nit ak benn yu jóge ci ñeenti gaal bokk ci ñoom ay jigéen yu bari waaye itam ay tuutànk 16h20 marine espagnole bi daal di amaat beneen alerte ñu ne am na beneen juróomeeli gaal boo xam ne ñu ngi koy séentu waaye fos alerte la woon moo ne day bu ñu sukkandikoo ci présidente ONG bi di Caminando Fronteras am na yeneen gaal yu daal di yegsi ci côte espagnole bi niki ajuma ji daanaka sax bi ñu duggee ci page Facebook am Elena Garson lëm ñu xamal moo di lu ëpp juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay migrants ñoom ñoo yàgg bis bi ca Espagne diggante El Hierro Gran Canaria ak Tenerife ñoom ñëpp nag jóge réewu Sénégal El País nee na ay téeméeri téeméeri migrants yu jot egg El ñoom la lu ñu nekk di yëbbu jamono yi Tenerife fan yi nag pourtant marine sénégalaise daal dina intercepté ay gaal yu bëri terewul nag phénomène bëkk mi mu ngi wéy di continuer anoracha jëm nañu am nag kaddu yi comité interministériel wa tamit ñiy xeex lépp lu jëm ci wàll woowee wala direction police euh, bi ñu dénk euh, daal di surveiller frontière waaye mujjul antu kuréel bu boolee association euh, consommateur ñu ngay waajal ab sitting fii ak fukki fan ak juróom ngir daal naqarlu dundi gi ni mu chéré ak ni ñu yokkee facture kon ak ndox leexal yi ak yoroon seen i kàddu di si eh, Seydina Mame san Laye li ñuy jaajëfal sa yenn consommateurs yi xam ne bi ñu commencé wax commencé ñu dégg bay jël am na ñenn ñu siy commencé jël ay initiative di def ay pétition ñu leen ci encouragé leen ci jàppale ñu ngi préparé benn sitting national incha allah pour wan état du Sénégal ne ko kat ñu toll nii ñoom ñu ngi seetaan consommateurs yi seen mission de protection bu ñu war a def si consommateurs yi defatuñ ko parce que fii ngay gis Sénégal transporteur la secteur de transport les tata yokk illégalement état toog di seetaan nga ñëw secteur boo laal ñu ngi yokk nga dem si ndox mi factures yi commencé woon na cher ñu bind ministère bi SONES ñu jël benn cabinet pour mu def ñu évaluer def uti lan moo tax factures yu cher mais ba léegi amaguñ si résultat ba léegi factures yëpp mu ngi commencé di cher parce que état fi ñu toll nii dafa croiser de balaa di seetaan consommateurs yi ak ñeneen ñuy def lu leen neex na dox li nga xam ne moom mooy yoon moom la loi ay yi tënk pour ñu mun ñoo protéger te ce fait que incha yëngatu ba ñëpp xam nañu yëngatu nañ te bu soobee yàlla élection présidentielle yii di ñëw dinañ am beneen taxawaay bi ñu taxaw si biir élection yi ñun en tant que consommateur parce que consommateurs yi ñoom ñooy électeurs yi dinañ leen wax bu baax ñu xàmmee ràññe kan lañu war a àndal door ak wàllu football ak coupe du monde bi soxal ñii di suuru milieu yi Sénégal nag daal dee gagné bi ci classement bi gàddu lii di médaille de bronze bi loolee gannaaw ba mu gañee nag Égypte ñaari bal ci benn kii di entraîneur bi ni ndam li nag dafa daal dee tax ba objectif ba nu amoon ca njalbeenu compétition bi ñu daal di koy atteindre kii di Souleymane Barro Fomba mooy entraîneur bu équipe nationale bu suur muyee yi. ñetteelu place bi ñu kontaan ci trop dëgg yàlla kontaan boo xam ne dafa neex fi xol waaye mënoo ko nat parce que fi ñu yóbbu tey turu Sénégal nga xam ne yombul yëg ci podium mondial yombul tey yàlla def Sénégal di ci national suur di yéegal Sénégal foofu donc mu nekk lu am solo loo xam ne kenn mënu ko natable te dañ ci kontaan jour yi kontaan ci ñëpp kontaan waaye nag mënuñoo bàyyi tamit bañ a gërëm tamit sénégalais yi parce que lépp li nga xam ne tey équipe bi mi ngi ko doon def ñoom dañ cee jàpp jàpp nañ ci ñaan yi pour équipe bi mën a gën a nekk fa mu war a nekk xale yi nag wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ndax tey lii yëpp amee ñoom liggéey nañ ci lu bari te kontaan nañ ci ñoom tamit te boo xoolee tey jafe-jafe yi ñu amoon ci préparation bi pour yegg si fii loolu daf ñu yokk jom rek te daf ñoo dimbali ñu gën a dëgër parce que loolu bokk na tamit tey tax réussite bi ñu am loolu daf cee daf cee daf cee bokk waaye tamit du ñu ñàkk bañ a gërëm jiitu réew mi le président Macky Sall nga xam ne dafa jël ay moyens def ko si ñun ba pare saa yi mu ñu joué mu ñuy yóndee message yu félicitation kon kooku tamit mënuñu ko fay donc nañ koy ñaanal rek. ba tey futbool bi la yoon nag ci Arabie Saoudite ak juróom-ñetteelu bëccëg bu Saudi Pro League Al ilaal bu Edouard Mendy daal day gagné nag derby bu doon dox seen diggante ak Al Ittihad bu Karim Benzema résultat match bi doon benn bal ci dara mu doon bit boo xamante ni kii di Ivoirien bii di Franck Kessié moo ko daal dee dugal Edouard Mendy moom daal daal dee defit match bu mucc ayib ak arrêt yu bare bare yoo xamante ni daal dinay tax ba équipe am daal dee mujjee nag jël bi leen ndam Sadio Mané moom équipe bam di Al Nasr dafa daal di mujj témboo ak équipe bii di Abaxa ñaari équipe yi kenn ku ci ne ñaari bal nga dugal ci sa kàngu moroom ñu jeexalee ko ak basket ci wàllu jigéen ñi finaal bu coupe du Sénégal war am ci samedi ji nag 6 heures ci ngoon bu jotee ca stade Diop Maris Ndiaye mu war a dox ci diggante AS Ville de Dakar ak Dakar Université Club ñaari club yi nag daje woon nañu ni ki week-end bii nu génn ci final bu coupe du maire de Dakar mu doon final boo xamante ni ñii di étudiante yu Dakar Université Club ñoo ko mujj daal dee gagné xibaaru tàggat yaram yi fi ci yem